dañoo faral nag di ci gis ay xale ay xale yoo xam ne ay mineur lañ ñoo xam ne amuñu sax 18 ans mais dañuy filmer seen bopp di def naka sudul noonu nekk ak ay xale yu góor bu ñu paree vidéo yu dugg ci internet bi yow loolu lan nga ci xalaat. waaw loolu di nga ñaawlu rek loolu di nga ñaawlu rek loolu ñoom dañoo nekk xale rek mais am na as boo xamante ni boo ko demee ba am ko am na foo ne boo ko tollee yenn àdduna yi doo ko def parce que loolu man mi nga xamante ni responsable la wala keneen ak keneen du ko def. bon xale yi koy def en général ay 18 ans la ñu am 15 ans 13 ans doo responsable par rapport ak ki nga xamante ni xam nga lu baax xam nga lu bon. internet parce que xale boo gis mu ngi yor portable di connecté wu te waajuram xamul fu mu jëlee portable xamul fu muy jëlee connexion donc sa doom boo ko surveillul si loolu lu bëri da lay rëcc yow mii di waajur bu jigéen parce que à chaque sa doom bu jigéen da ngay toog ak moom di waxtaan ak moom du dóor mooy doom toog ak lu ci jëm lu si suñu maam yi doon def loolu la ñii ñi war di continuer di xelal seen doom yi pour suñu réew mën a jëm kanam parce que ñii dañoo ndaw ay 15 ans 16 ans ñooñu motuñu dara. parce que xale boo xam ni 16 ans 15 ans di def loo xam ni sa xel mayu la leen lu dul ngay farantu bay ñu jël say cër di ko dugal ci Facebook ñu koy seetaan muy tas fu loolu loolu dama koy ñaawlu bu baax a baax. mais li may li may gën a bàyyi xel mooy suñ ci ñuñ lay lay lay lay lay ñëw quoi parce que ñuñ góor ñi pon jigéen mooy suñu yaay mais ñuñ amatuñu sutura. loolu du man maa leen ko wax amaana ñoom am nañ ay parents seen parents yi war nañ see def seen kéemtulaay kàttan pour ñu yaru pour seen seen doom bañ a def loolu ndax moom bu ko defee ga moom moo ko def waaye parents am itam am na si wàll xam parents am gisee du ko neex am déet. bu dee neex na seen parents yi nag man loolu xaw ma si dara waaw kay. waaw xale yi fi ñu koy defee parents yi duñ fa nekk dañ koy def ba pare parents yi doog doog koo dégg wala ñu doog koo jot am ñoo xam ne dana dem ba xeewi sa sa parent du ko yëg sa parent du ko yëg comprendre nga xale yi moom boo bëggee dégg-dégg moom bu fekkee ñoom seen i pexe rek parents yi mënuñu ko xam am na gis parents yu weex yoo xamante ni dañuy teg xale yëpp si sart yu wóor yu leer di leen jàngaloo di leen dugg école yu baax mais booy am ñoo xam ne bu ñu xëyee duñ am école ci appartement yi la ñuy yendu ba heure wàcc jot ñu ñëw parents yi lu ñu xam dara. lépp ci yarin bi la ay waajur bu ne doomam mu di génn war naa xam fu doomam di dem ban heure lay génn ak ban heure lay dugg ku seetlu doomam ci loolu war ngaa contrôler lépp ci lu muy def man de ci parents yi de laa ko contamné parce que man bu man sama doom buy génne dinaa xam fu muy dem ban heure lay dugg ak. kan lay àndal buñ ko boo koy seetlu ci waajur yi yarin bi dina normal. am nga doom boo ko amee d'accord dafay laaj nga yar ko parce que boo ko yaru tamit mbedd bi dina ko yar mais li ci gën a am solo mooy parents yi d'accord mais ñu ngi yar mais imagine tey nga jël sa doom yar ko yar ko yar boo xam mi même pour génnee ci mbedd bi du am fit pour wax ak cour légui imancel tay ku góor gi ci jëm bopam bon yar nañ ko mais xelam nekul dara lu bëgg jigéen nga jël doomu jaa boobu nga këf ko yóbbu ko kon bu yàqoo yow xale bu góor bi yaa ko yàq parce que para bi lim war rek mooy def na ko tey yar ay doomam mais nekku chaque jour rek euh, bon da koy topp ci ci ci loo xam ni amul njëriñ non non non doom da nga koy yar yar bi mooy yaa ngi koy yar yaa ngi koy teg euh, fi mu fi mu fi mu pala yaa ngi koy delloo palaasam mais mais doom loo ko yar yar yar yar yar même bu fekkee ku góor gi alors que ni bàyyil ci xelam ci moom yow yàlla mën na laa musal sa xele bi sa doom bi day continuer yar bi nga def ci moom mooy am mais bu fekkee ni sama classe yi loo yar yar yar sa doom buñ ko gisee buñ ko bëggee mënoo wax a wax wax wax ba li nekk ci bopp duñ ko dindi si ñu dindi ko. sama papa gaañu na waaye léegi sama laa dese. pare naa pour dalal ko te parewuma pour mu gis ma si yenn yu ñàkk fayda yooyu waaw li ma leen conseil rek mooy loolu amul benn saaf ñoom lu nekk seen xol mën nañ ko lijjantee leneen paa publier ay vidéo xam nga buñ publier doon vidéo yi kenn du ko xam biñ ko gardé seen téléphone ndax kenn xam na waaw dama leen ay wax rek leen bu mën a xam bu mën a xew ay vidéo yooyu buñ ko pibli ok merci